بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه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 fii ci kër Serigne Touba gi ñu nekk fii ngir jaayise bi nga xam ne moom lañ tuddee Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul al alamiya lil quraanil karim mu nekk jongante alquran boo xam ne dañ koo taxawal ngir àdduna bépp képp koo xam ne rek bëgg cee bokk te am bi mën cee bokk. mu nekk loo xam ne dañ ko séddale ci ñetti xaaj xaaj boo xam ne dañuy def mbokk alquran ànd te tëjul bu rafet. ak xaaj boo xam ne mook alxuraan la tajwid ak tafsir ak xaaj boo xam ne ñoom dañ leen soññ ngir fukki xisib yi ñu mokk ci alxuraanu karim ñu ñëw fi nag incha allah boobu léegi nit ñi xam nañ ne ñoo ngi tolloon ci wàllu mbind mi ngir lan képp koo xam ne bëgg na cee bokk fi ngay jaar mbind nit ñi nag boobu léegi ñoo ngi bindu ba le 31 bi passé lañ taxawale ni mbind mi ñu ñëw fi nag tey incha allah ñi nga xam ne bind woon nañ ci faraw yooyu yëpp nag ñu dajale seen vidéo indi leen fii ngir xool saytu leen ba xam ñoom kat lii nga xam ne moom lañ bëgg a bokk ba xam ñoom am nañ Moustapha bi ba xam mën nañ cee bokk wala déet fooy lañ ñëw ni incha allah pour fa yéene leen xool ba xam mën naa wax ne maa ngi bokk ci lajnat tahkim bi man maa koy coordonné fexe ba ñi nga xam ne ñoo ci liggéey ñu fexe ba dajale leen saa ñu waree dem fenn ñu woo leen bu ñu ñëwee tamit incha allah ñu ànd ak ñoom liggéey bi ci lañ ñu doon war a dimbale ñu dimbaleent te ñoo ngi ñëw fii kër Sëñ Tuubaa gi gis nga ñoo ngi noonu dañ leen séddale ci ay néeg ñu toog ci ñetti néeg comme ni nga xam ne noonu ñu séddale faraw yi fexe ba faro bu ne ñu xaaj ko fenn am ñoo xam ne sax ñi nga xam ne dañuy def tafsir dañ leen a booleeg benn lañ ne boo xam ne moom ñoom xam ne ñoom loolu rek mooy seen yitte dañ leen jox ñoo xam ne ñoo leen war a àtte xool ba xam ñi nga xam ne dañoo bind pour tafsir alquranu karim ba xam am nañ mustawab mën nañ cee ak ñi nga xam ne dañoo ñëw pour tajwid alquranu karim ak riwaay bu ñu mën a jàng am ñoo xam ne ñeen boole ñoom ñu déglu leen ba xam kii mën naa bokk ci farax bi mu tànn ñi nga xam ne dañu def achra mooy fukki xisib ñoom tamit ñu xool leen xool ba xam fukki xisib yi ñu tànn ne wax ñoom dañ koy bëgg a jàng ba xam mën nañ bokk wala déet kon xam naa incha allah dañuy dugg ci biir rek fenn fu ñu taxaw joxoñ wax ne ñii ñooy def li incha allah rabbuna bisimilah ñoo ngi ci benn chambre boo xam ne ñi fi nekk tamit ci lañ ñu taxkam lañ bokk ñoom ñooy chambre numéro yi nga xam ne dañoo bind ngir def xefzu ma tajwid ñoom ñoo nekk fii ñi ñoo ñi nga xam ne ñoo ñi nga bindu ñi bind woon ci vidéo yi gis nga ko ñoom ñoo nekk nii la liggéey ñoom vidéo yi ñu génn woon yëpp bés benn vidéo mu génn vidéo yaa ngi nii incha allah nii lañ ko toftalee ñoom vidéo buñ tiim rek dañuy xool xale bi lépp luñ setantal ci am njàngam rek kayit yaa ngi ni ñu yor buñ paree noté ko incha allah ñiy dajale point buñ paree xool xale yi ci jiitu incha allah rabbuna ñu yëg ne kat ñoom mën nañoo bokk ci lañ na bi gis nga ko nii ko defee allah rabbuna waaw nga xam ne ñi àtte ñu ne dañuy toll ci lu toll ci ñetti nit gis nga ko fenn fu ne boo dee ñetti nit nga fay fekk ñoom ñett ñëpp kenn ku ne jox yitte li nga li moo tax ñu def ko ñett mënoon nañu ko def kenn nit waaye bëgg yëf am sécurité ak mat moo tax fenn fu ne ñu teg fa ñett nit pour ñu saytu ko xool ko incha allah waaw incha allah ñoo ngi doon ci liggéey bi ñu xool feneen incha allah. fii mooy chambre 2 am na tamit ñenn ci lañ na bi ñu fi nekk man ñett nit comme ni fee ñoom tamit incha allah dañuy xool liggéey gis nga dañuy ferme bunt yëpp ngir bañ dara déranger la ñoom rek ñoom ak ñoom ki ñuy déglu kese ñoo fay nekk ci biir bisimilah. waaw gis nga ko liggéey liggéey baa ngi nii macha allah comme ni ñu ko defee woon ci rek ñoom ñett ñooy toog kenn ku ne yore ay këyit buñ ñu génnee vidéo bi ñoom ñëpp ñu xool déglu xool ba xam kii fan na war a bokk ak li mu wax na fa lay bokk tamit ba xam méngoo nag mën na faa bokk wala dégg gis nga ni ko defee incha allah rabbana mbokk yaa ngi nii gis nga ko nañ ko waxeen fa rek bëgg lu wóor moo tax ñu def ko ñetti fenn fu ne farax bu ne daanaka lañ na bu ne ña fay nekk ñett ni lay rek kenn ku ne toog yër si bi nga xam ne kee la muy noté ak ki li ñoom ñëpp mën naa bañ a bokk bu noppee xool na xale bi ci jiitu incha allah rabbana ñu euh, jox ko la mu yelloo incha allah xool ba xam mën naa bokk ci concours bi wala déet fi mooy chambre numéro moom nag boo gisee kunkër yi daa am ñu bari miinoon nañ ko mooy gone dañ daan def ci wàllu mokk alxuraan ak tajwid jaayise Cheikh Xadim nag da cay yokk loo xam ne daanaka baaxuñ koo xam mooy lan ma tafsir da ko ca boole mooy lan déet xool maana yi ñu ci déggee ba xam noonu la wala déet ak tamit xale yoo xam ne dañu doog a jàng ak ñi nga xam ne dañoo bëgg alquranu karim di ci nab na ñu leen soññale prix boo xam ne ñoo ngi ko def pour fukki xisib ñi nga xam ne am nañ moom bu dee fii ñu jëm nag mooy ñi nga xam ne ñoom lañ jagleel wala tafsir bi ñoom ñoo nekk fii ak xale yooyu nga xam ne ñooy def fukki ay sib ngir mën a jàng macha allah bisimilah kon ñu dugg ñoom tamit xool seenu liggéey bisimilah. فتمنوا الموت إن macha allah gis nga ko fii ñu nekk gis nga ko ñoom ñooy déglu xale yi nga xam ne ñoo bindu ci fukki xisib yi ak ñi nga xam ne ñoo bokk tamit ngir tafsiru quraanu karim gis nga ko la ñëpp gis nga ko moom macha allah euh, yitte ji ñu ko war a jox moom ndaxte moom dafa nekk kii boo xam ne xaaj boo xam ne yaakaar na bëriwul lu muy am ci jaayse yi am bëriwul lu muy am moo tax fii daanaka boo xoolee gis nga ko macha allah ñi fi toog ay cheikh lañ yoo xam ne jàmbar lañ ci waar wi ma ci jàng alquran jàmbar lañ ci tamit macha allah ci njàngaleem xam-xam meeg yëpp macha allah moo tax ñoom ñu jagleen li gis nga ñoom ñooy saytu xool ñi bindu lii ñu def lépp nag mooy xool ba xam ñi bindu ba xam am nañ dayab mën a bokk ci concours bi wala déet lii loolu donc lay jariñ macha allah buñ noppee nag danañ leen tànn gone yi am ñoo xam danañ dem quart de finale dem dem ba finale loolu lépp am na incha allah nga xam ne ñi nga xam ne dañ leen a ñu war a jógee bitim réew ñoom bu soobee yàlla dañuy bàyyi ba nga xam ne quart de finale jàll na demi finale yi jàll ñoom nag ñu ñëw participer ci finale bi ànd koog ñi nga xam ne ñoo bindu ci réew mi incha allah rabbuna waaw buñ paree ñoom dañuy tànn ñoo ngi bëgg daal incha allah fi mu toll ni ñoom ñu génnee 45 ñoom tey jii te lu toll ci cent soixante xale ñoo ngi fi yoo xam ne ñëpp bind nañ bëgg a bokk te ñoo ngi ci war a tànn quarante cinq moo tax liggéey bu jafelee doon boo xam ne moom moom incha allah ñoom yaakaar naa bu ñu paree ñun danañ am li ñu bëgg bu soobee yàlla incha allah rabbuna waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu xaq di leen ñaan suñu borom boole ñu baal eh, ànd ak eh, kilifa yu tedd yi Cheikh Mouhamadul Fadel Seck al mufattish ci sama ndeyjoor Euh, Cheikh Mouhamadul mamun Mbacké ci sama càmmoñ ñu nekk fii ci euh, résidence Cheikhul Khadim si ci jumaa ji euh, ci taxawaay bi nga xam ne Grand Prix Cheikhul Khadim mi ngi koy am Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñi ngi koy amal tey jii nga xam ne ci lay ñu ci la lajnatu tahkim tàmbali di déglu ñi nga xam ne ñooy tari ci vidéo yi nga xam ne yónnee woon nañu ko kon gannaaw bi nga xamee ne grand prix Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul euh, soobu na ci liggéey bi yi euh, def ay yëgle mbooloo mi bindu ci biir Sénégal yëpp euh, ba ñu enregistré lu ëpp cent cinquante vidéo laaj na tasbil bi tasjil ji jébbal ko laaj na taxkiim ñoom it ñu tàmbali tey jii liggéey bi alhamdulillah bi ñu xëyee ci suba ba léegi euh, mbooloo mi ñu ngi ci di visionné di déglu euh, liggéey bi it mi ngi dox ni nga xam ne noonu lañu ko séentoo woon ànd ci ak kuréel bi nga xam ne ñoom ñoo koy israaf euh, tansiqiya bi Serigne Jili Ñang mi ngi fi Cheikh Mouhamadul Fadel Seck mi ngi fi waaye laj na taxkim tamit ñu ngi ànd ak Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacké ak mbokk yi nga xam ne ñi ngi ci liggéey bi yëpp Cheikh Mouhamadul Bachir mbay ak ñëpp rek waaye alhamdulilahi rabbil alamina ci suba ba léegi daal yëf yi mi ngi dox amul benn gàllankoor li ñuy sukkandiku ngir génne mooy ni nga xam ne noonu la ko istimaara bi tënke woon nga xam ne euh, bind na ko ba mu leer wax kenn ku ci nekk ñaata su àll am euh, buy tari ñaata vidéo la war a enregistré moo xam tàmbalee ko ci far'ul awal muy xifsul kaamil ma tajwidi wa tafsir dem ci far'u saani al xifsul kaamil ma tajwid ak xifsu saalis bi nga xam ne mooy xifsu ma tayassara wala xifsu asrata ajisa kem ni ñu ko baaxoo waxee su ko defee ñi nga xam ne ñooy lajna taxkim bi kuréel bu ci nekk gannaaw bu ñu defee ab dajee wala sax ay ndajee waxtaan ci istimaara bi euh, leerlu ko ba mu leer ci ñëpp bi ñu xëysee ñenn ñu nekk ci seen barab fekk nañ ñu préparé ci see ñett ñu kuréel bu nekk am nañ seen barab bopp boo xam ne liñ soxla lépp ci jumtukaay ma nga fa euh, ñu teg vidéo yi di déglu comme ni xale xale bi dafa teew ku ci nekk yaa ngi ak say kayit euh, suy jàng ñuy déglu su amee lu mat a taxawlu ñu taxaw bii sax nga xam ne dafa mel ne daanaka moo xaw a gën a jàppandi par rapport ak bu doon xale li nga koy arrière ak a delloo si kii moom loo ci am looy nattable ngay arrière mu dellu si ñu déglu ba kooku jàll ku ci nekk li nga ci yëg ci ay point nga def ko su fekkente ne lu jëm ci wàllu tafsir bi it am na ci ñu xereñ ñoo xam ne ci faron bi am tafsir ñoom bàyyi nañ xel ci loolu lu ci nekk am nañu ay maraaji yoo xam ne juboo nañ ci mustalahaat yi tamit lépp déggoon nañ ci door a ñëw ci bis bi bu ko defee incha allahu taala faran bu ne suñu dégloo ña ca nekk fukk ak juróom yi ci jiitu ñoom la ñuy retenir su ko defee loolu boo ko dajalee moo lay jox quarante cinq quarante cinq yooyu nag ñoo war a def euh, li des ci ñoom la ñu war li des ci liggéey bi muy rubu nihaiyaat yi ak nisfu nihaiyaat ba ba ñuy àgg ci nisfu nihaiyaat yi muy quart de finale demi-finale ak finale ba ci boppam incha allahu taala. waaw ñett dañu bëgg rek mu gën a maandu kenn mën na ko def waaye ni nga xamee nit kenn euh, dafa yomb nit day xayab di absenté lu tuuti day tax yëg-yëgu nit fàddu waaye su lu mel ne ñaar ba ñett nekkee di topp mel ni biir amaana lii rëcc kii bu bu dara rëccee kii du rëcci kële li tax ñettit am solo mooy gisiin yooyu nga xam ne moom lañuy am euh, su doon ñaar ñu tolloo ci mbir day yomb waaye ñett ñu bokk di topp mel ni mbir ñu ñoom ñëpp ñu tolloo la ca dana xaw a jafe loolu dana tax euh, bu noppee rajnatu la isu euh, rajna raisu lajnati tahkim kii bu ci nekk noonu nga ko gis am na rais am ñaar ñoo xam ne ñoo koy jàppalante loolu su Sonopé day tax ñi nga xam ne ñoo yar kayit yi di ci liggéey loolu daf koy daf koy yombal ba tax na loolu ñu baree bari ci àddina déggoo nañu ci euh, kuréel bi nekk ñett kenn ku ci nekk yor sa këyitu bopp ñu tàggat leen ci ne leen ku ne saw kayit li nga xalaat li nga yëg joteewoo sa moroom dara euh, soo demoon ba gis ci sax loo xam ne mën na laa jaaxal da ngay defaat confrontation ku ci ne maanaam tey boo gisoon benn euh, sual wala benn nuqta nga fekk ñetti xakam ñu wuute ci lool am na ci wute goo xam ne xel du ko nangu sual bi xale bi kii may ko ci cinq kee may ko ca 15 kee may ko ca ba vingt wala 25 ba 30 kooku da nga def confrontation ba pare en tant que juge bi dina ne lii nu mën a demee ku ci ne nga expliquer wax lu jaadu ndax. benn tari différence bu toll noonu euh, waru caa mën a am euh, kon ñett yi pour liggéey bi gën a maandu loolu moo tax ñu defee ko noonu. effectivement noonu lay demee lii moom ngir euh, tàmbali liggéey bi ak jàppandal ko la waxtu wi nga xamee ne mbokk yi muy tansixiya bi am na ndigal ci sëriñ bi xalaat liggéey bi yóbbu ko ci mu rafetlu ko ba ñu tàmbali ko diggante boobu dafa xawoon a xat par rapport ak fi ñu jëm ca màggal ga. gisoon ne bëgg wër wër 45 départements yi même boo ko bëggoon def 14 régions yaatuwaay bi am na nu muy demee du mat lool la gën mooy kon def ko départemental 45 départements yi diggante yi soo ci bëggoon wër loolu mën na jafe mais ak léegi technologie nga xam ne li ñu tuddee ak sax jegeel lu sori boo lancé surtout ñu jaarale ko ci am ay euh, représentants régional départementaux ci structures yi nga xam ne ñoo fi nekkoon euh, lu baree bari ci département yi sëñ yi fi nekk ñu jëfandikoo leen ñu ñu yaatalaat ko ci seen biiri groupe information bi tasaaroo fépp kenn ku ne mën a bind loolu dafa tax mu yaatu ba noppi biñ bind biñ bindee ñu biñ bindoo enregistré ñu leeral ko ci njalbeen gi def ci ay émission def ci ay plateau def ci ay vidéo mu jaar ci réseaux sociaux yi nit ñi jot ci leer ci ñoom kenn ku ne toog jël sa temps enregistré booleeg rempli sa istimara bu dikkee euh, fekk na tansiqiya bi am na benn équipe boo xam ne wut nañ benn banque de données ñoo koy recevoir codifier ko ba kenn du du jaawaloo ak kenn nga jox ko mbooloo mi ñu déglu ko loolu dafay leer waaye bi ñu jógee ci lii nag ba nga xam ne déglu nañ jépp faran bu nekk 15 yañ jàpp ne ñoo ci jiitu ñoo ci gën a matal sart yañ doon wut léegi li des lépp jëmm ak jëmm lay doon dañ leen di woo sàkk calendrier boo xam ne buñ ci àggee date sàngam danañ def euh, quart de finale yi ñooñu dañuy ñëw teew ci toog ci table jàkkaarloo ak xakam yi ñu laaj leen ñu tontu kem ni ñu ko xamee parce que su boobaa euh, léegi ñëpp jot nañ ci te dootul yaatoo noonu temps bi dana ko maye kon lee dañ ko jëfandikoo woon rek pour sa temps bi ñu am fii ak màggal ñu mën koo euh, sakkanal waaye li des moom incha allahu jëmm jëmm lay doon ba ba ñu dem ca final ba. <laughs> kay lu tam bu am solo nga wax euh, ndax léegi ñëpp yónnee nañ seeni vidéo ñu ngi toog di déglu incha allahu taala suñu noppee ci euh, préliminaire yi ñuy def nii 45 yi ñu retenir ñëpp ñu ngi ak seeni adresse dinañu jokk dinañ leen woo képp koo xam ne woowuñ la nga xam ne xëy na. ci yoon bi yàlla moo ko dogalul ñu préparé incha allahu taala gën a waajaat rek euh, ngir beneen bay ñëw xam ne am na loo xam ne mën naa am du tey tey ëllëg waaye koo xam ne woowuñu la dangay xam ne kon daa am ñeneen ñu jàll rek waaye ñu jàll moom ñëpp dañ leen woo incha allah wajal bi jaayil multaqa xayaati ذي الهيام